jeexaat moom mënut a ñàkk foog ñu jeexaat te dinañ for doom incha allah. waaw. léegi eh, bu gars yi may lañ ñu tuuti. Eumeu Sène ñu bëgg a xam ndax combat bi ak sa par rapport ak sa combat bi nga njëkk am ak Bombardier. Mm. est-ce que ni nga entraîné woon ci combat boobu ak ni nga ko fonke woon noonu nga fonke combat bi. no bii la bii la ëppee incha allah bii la rawee. Mm-hmm. voilà. ko bi moom loolu moom saa ni ci def ko ba le 27 incha allah. mu mel ni mu mel ni Bombardier nee na li des ci carrière mu mel ni Bombardier nee na li ci carrière am dootul dem di jëli benn mbër te moom forum la ak lu xam nañ ne forum la arbitre sifflé mbër di dox kaw ndax loolu yaa koy bàyyi xel. dégguma la wax waxaat ko ma dégg waaw Bombardier. Ah. dafa mel ni nee na li ci carrière am. Ah. dootul dem. Ah. benn mbër. ca digg géew ba ah day toog bi la xaar ndax xam nga dina dem wala du dem. non combat bi mënu ci toog di xaar dañuy daje mu mënta ñàkk la day ñëw. non ci micro ngay waxee Sénégal ñoo lay seetaan adduna ñoo lay seetaan te combat boobu combat capital bu am bu bombardier taxawee est-ce que dañ ko jëli. jàmbaar le 27 ñu ngi ci woo ñëpp dañ ci combat bu neex jàmbaar la. yàlla nañu yàlla suturaal mu ngi tëj ak ndaanaan dëgg yaa ngi dégg wax bi mm-hmm. waaw yàlla nañu daal may ndam mais combat bu ñu fonk la jàmbaar di nga xeex ak bombardier lu combat bi laaj rek jàmbaar kuy dem guerre lépp ngay préparé am dañu bëgg Sénégalais tey li bi dañu bëgg xam tey Eumeu Sène lan la war a indil bombardier amoo danta wala kon kenn du dem guerre di wax armes yi ngay yóbbu mais ay armes fatales yi ñëw incha allah. mais ñu bëri sànq dañ la jox suñu micro. Mm. mais dañ ne bu Bombardier taxawee Eumeu Sène taxaw combat bi match nul la gën a jege te amateurs yi xaaruñu loolu. est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi. maag mel ñu noonu. Mm-hmm. jàmbaar la may jàmbaar. loolu bu ko kenn séntu ci combat bi. Mm-hmm. Mm. ñëwal Mamadou Diouf nee na am na deux questions pour Eumeu waxal mu dégg la. mais Eumeu ñu ngi lay di nuyu mbooloo bi yëpp ah, am naa ñaari question pour yow benn bi dañu ko jël ci Bombardier mu ne génne na slogan bu bees nee na ku ko dóor abal ko yet bi dóor fayu. Hmm. beneen bi sa ñàkkateew mbuur samedi bëggoon ñoo xam lan moo ko waral. waaw ñàkk teew bi du leen rek lu ñëw voyage yi xam nga ci diggante bi aussi temps bi xool nañ ko mais duñ mën a fekk mbuur parce que tey boo xoolee ci ñu njëkk a d'accord dem mbuur man ci laa bokk aussi du dëgg parce que yàgg na ñëw mais ñëw bu muy ñëw Dakar tamit daje lay doon man damay jug dem ñu daje ci ci ci ci télé wala ñu daje feneen kon dajale la te tamit aussi xëy na noonu la ko yàlla suñu borom tuddee mais tamit aussi amul benn problème waa mbuur yëpp maa ngi leen di jégalu ci ñàkk bañ a teew bi ak Sénégalais yëpp voilà te tamit Mbour dafa bëri ay supporters tey sama supporters yi demoon mënu wax nu mu toll su ma ko daanee rek dem Mbour nuyu moo daan tax. a baax. waaw te yow bii mooy sa première sa diggante ak nga ci ñaari ñu koy préparé jàmbaar ñu ngi waajal combat bi waajal bu bu yéeme. bii na bii mooy xupp bi. yàlla mi am ndam yàlla yàlla may ndam. incha allah bii mooy xupp bi ndax bii mooy ñaari ñaari combat yaa ngi ci ñaari contrat sa digganteeg Bombardier ak sa digganteeg Balla Gaye te bii mooy premier xupp bi. incha ci kàttanu yàlla ci Bombardier lañ nekk fu mu toll nii Balla Gaye ñëwagul. am na yeneen combat yu mu war a bëri après ñu soog a dajee. beneen bi ci des mooy que. ku xam Eumeu Sène xam ne joxe nga revanche jël nga revanche. joxewoon nga revanche sa mars boobu na nga woon mbër bi carrément ci jeexaay bi ci entraînement bi tey ma gisaat état de forme gis nga ne woon sa diggante Gris Bordeaux dem ba jeex mën nañ koo xaar sa diggante ak combat bi. lépp lañuy waajal jàmbaar. mooy lu <laughs> waaw liggéey bi métti rek. na dafa gis ne da nga lan moo tax nga wàññi poids bi. liggéey bi rek la. liggéey Bombardier boo bëggee bëri moom faaw nga wàññi poids wala. non non di question wàññi poids xëy na cardio bi li ñu liggéey moo bëri rek. waaw li ñu liggéey ci kombaa bi moo waral loolu du dëgg mais nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla mi am ndam yàlla ñu yàlla may ndam jàmbaar incha allah amatir nañ kontaan. ñu kontaan combat bi neex waaw. Hmm. ñu lay fay. tey benn ku fi ndax moom yaa ngi koy sóoraale. ma nee na ndax ku bi nga xamante ni bombardier joxoon na la ko. ah nee na ndax yaa ngi sóoraale ku bi nga xamante ni sa premier combat bi nga jël roi des arènes ak bombardier ku boobu la bombardier jox ndax yaa ngi non jàmbaar fu mu toll nii sóoruma loolu wax dëgg yàlla waaw ñaanuma xam nga di. jël kaay kii yi demee noonu mais amuñu leen daal lu ñuy ragal ci kombaa bi du xeex bi du bëre bi ku ma xam-xam ni yàgg naa jur ay coup fatal téye suma ngor ak suma conscience dem liggéey yàlla may ma ndam kon loolu nekkul dara combat la mën na jël coup mën naa jël coup waaye moom nga jël coup ci bii incha allah da ñaan. li bëgg a laaj mooy yow yaa koy leen fi nga war a recevoir nee na lan ngay wax say supporter comme yow yaay dalal Bombardier fii ci arène nationale pour bu lamb ji jeexee ñu bañ di daj ay sées di kii parce que loolu sax léegi seen de lutte bi ak sécurité bi jël nañ ci matuwaay yu wóor bu yeboo nag supporter yi bàyyi ci xel ñu déglu Eumeu Sène ci question. non man ay supporteurs noobu laa am parce que samay supporteurs mosuñu def loolu te je pense que duñ ko def ah. waaw. waaw làmb la rek combat bi euh, ñu koy waajal kon ni ñoom préparé yenn combat yi je pense du nekk combat bu soof ku xam ku ne xam na Bombardier jom ji ne ci moom ku ne xam ne Eumeu Sène tamit fulla ji ne ci moom kon nu mu waxee bu ko bëree lamb ji moom incha allah dina doon làmb ji gaaw incha allah. léegi dernière question gars waaw waaw. Eh, booy ñoom nee nañ kan kan moo laaj loolu. Bamba Bamba Major TV nee na présence su booy ñaa day wane ni amul benn ñagas-ñagas bu am seen diggante ña jàmbaar ñii sumay rakk lañ maa seen mag du dëgg kon euh, doxaayu mag rek laay doxee du dëgg kilifa laa jëfi kilifa laay doxee sumay rakk lañ du dëgg amul benn problème jullit laa jéggal naa ñëpp baal naa su may rakk lañ suñu amee bis dinaa ci teew dinaa def ko nu ma doon def parce que àdduna amul solo àdduna dafa gàtt. du dëgg jaajëf maa ngi nuyu nag. léegi ñu bàyyi la nga nga maa ngi nuyu nag waa Pikine yëpp ak mbëru Pikine yëpp di ñaanal euh, Ama combat bi muy yàlla may ko ci mu jël roi bi mu gagné. booy ñaa combat mi nekk ci kanam tamit aussi maa ngi koy ñaan yàlla may ko ndam sook tamit aussi maa ngi ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam ak mbëru Pikine yëpp Ziza ñëpp maa ngi seen ginnaaw man drapeau Pikine moo ma ñor te maa ngi seen ginnaaw incha ma ngi euh, santaat sërif bu baax a baax maa ngi sant sërif yëpp tamit aussi maa ngi nuyu di waa AS Pikine jóge fa tamit aussi di nuyu waa Casamance bu baax sama mbokku joolaa yi di nuyu tamit aussi sama mbokku séeréer yi di ñaanal Casamance yàlla na fa jàmm am parce que Sénégal benn bopp rek mënu ko xar ñaar waa Gambie tamit aussi aw ma seen fay. du nuyuwaat waa Pikine du nuyuwaat waa Pikine du nuyuwaat waa Pikine aw ma lu dul Pikine fi laa juddoo yaroo fi màggee fi doomu Pikine cent pour cent laa du nuyu waa ginnaaw raay tamit aussi bu baax du nuyu tamit aussi waa Mbaaw. jigéenu mbaaw bi tamit aussi maa ngi leen di nuyu parce jigéenu mbaaw yëpp dañ def délégation bu mag jël lu ñu am yëpp boole ko ñoo jàppale si combat xooluñu ne tey ni maa ngi gagné lii wala maa ngi gagné nangam ñu jël seen ñàkk yëpp def ko ci. du nuyu tamit aussi seen borom kër yi leen bàyyi tamit aussi ak ñi tamit ñu leen ñi leen ñi leen doole ci loolu maa ngi sant waa mbaaw bu baax a baax a baax.